bala ngay teewlu vidéo bi mbind xonk mi ñu bind abonné cliquer ko nga abonné ànd ñun ci mboolem programme bu ñuy dugal ci kër gi njariñ kase nga fi jële insha Allah bi sarfi almasiyaat kay ma taqooda simaamin lirrasiyaat adan li tasdaada xalbi usna wa wajaxat li hadaaya أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن نهج على منوالهم إلى يوم الدين bokki jullit yi bokki téléspectateurs yi bokki internet noo ngi leen di nuyu ci seen kër gi di Faaida TV di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñuy dikkaat ak rekk ci niñ ko baaxoo defee ci émission bi nga xam ne moom la ñu duppee tànn sa la neex suñu émission tey nag war a dëppoog euh, parti numéro onze bi muy parti onze bi te yaakaar naa ñi nga xam ne ñoo ngi suivre euh, tànn sa bu la neex euh, ñu ngi doon leeral ni émission la boo xam ni ci tàmbaliment bi ñoo ngi jël xasida gi nga xam ni Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul daf koo jëloon présenté ci ñaari eh, soxna muy ñaari jigéen ah, jigéen yu njëkk ji di eh, Suleyma jigéenu ñaareel bi di xoolo ayni gi nga xam ni mooy xaar eh, jaam bi fële ci aljanna mu mel ni présentation bi nag ñoo ngi woon ci jigéenu ñaareel bi muy xurul ayni ba yegg si woon fi cheikhul xadim doon waxe ni ñoom ay jigéen lañ yoo xam ni ay jongama lañ yoo xam ni duñu deñ di doon ay jànq maanaam saa bu seen boroom kër ya àndeek ñoom ci rapport sexuel ba noppi dañuy nekkaat ay jànq dañuy nekkaat ay jànq yu set yu sell yoo xam ni dafay mel ni góor mësta ak ci seen kaw saa su ne nag noonu lay demee moo waxoon ni tamit duñu mujj ci dee maanaam ay soxna lañ yoo xam ni dee du leen gaar maanaam seen boroom kër ya duñu am naqar te naqar wala leen ko teg mooy faatu buñ faatu déedéet ñoom duñu dee benn yoon waaye itamit duñu màgget waxoon na lu mel noonu waaye itam la ci gën a yéeme mooy duñu deñ di wéy di doon ñu ñu sopp waaye itam mu waxoon ni ay soxna lañu ay jongama lañu yoo xam ne nii ah, samam xel dal na ci ma leen di jël di jël soxna si di Suleymaan di ko teg seen kaw am ay soxna lañ yoo xam ni sama xel teey na sama xel dal na ci ni duma jël mukk ñoom Salma ak Layla Hindaati di ko teg ci seen kaw ah cest à duma jël àdduna ak limu mu làmboo ci ay taar ak ay confort ak luxe di ko jënde soxna yele nga xam ni ñooy xurlaay ni yele nekk biir aljanna lu tax Cheikhul Xadim wax loolu ni sama xel dal na ci ni duma leen jënde mukk du yëkkati mukk àdduna ak li mu àndal ci taar di ko teg ci kaw ñële mooy soxna yële dañu soxna yoo xam ni ragal yàlla moo koy may te ragal yàlla googu mooy tax nit ki am ngërëmal boroomam ragal yàlla googu mooy may nit ki mu am ridwaanullah muy ngërëmal yàlla waaye mooy may nit ki mu am qurbun minallah te mooy jige borom bi subhanahu wa taala te xam nga ni cheikhul xadim lool lay jàngale ci xasida gi di jàngal nit ki nii loolu la war a xëntewoo mooy lépp loo xam ni ragal yàlla moo la koy may loola rek moo jara nekk moo jara tamit maanaam joxe sa temps ba jeex tàkk waaye lépp loo xam ni mooy yàlla ak sori ngërëmal yàlla ak am yàlla moo la koy may lu jara daw la te mooy ñaari soxna yi soxna su njëkk si li koy may nit ki daanaka bu ci sóoboo rek mu ngay jige ma ngay ma ngay ma ngay sori boroomam ma ngay sori yërmaande yàlla ma ngay sori ngërëmal yàlla te mooy Suleymaan ku la gën a bëgg àdduna rek moo la gën a sori ngërëmal borom bi subhaanahu wa taala waaye moo la gën a sori tamit maanaam yërmandeem waaye képp koo xam ne nii daf laa gën a jige maanaam ak ragal yàlla te mooy maye soxna yële kooku mooy ki la gën a jige borom bi subhaanahu wa loolu tax suñu émission tey di dëppoog partie onze bi cheikhul xadim tàmbali di wéy di wax ni wa mahruhunna tiqaullahi fatiriha bi tawbatin min hawa nafsin li mu ni wa mahruhunna seenu cam cam bi nga xam ni mooy tax ñu lew la doon sa doon sa soxna ñoom soxna yooyu ndax xam ngeen ni jigéen dafa bokk ci ñeenti farata yi nga xam ni mënta ñàkk buñ la koy may muy ñeenti arkaan yoo xam ne su dajewul mën ngaa bañ am soxna ci asharia al islaamiya te euh, ba ca gën a ràññeeku te mooy bi ñu soxla mooy can gi nga xam ni danga koy jox jigéen gi ginnaaw ba wal yi ñëw muy kilifa yi daje waxtaan euh, ak li nga xam ne nii mooy euh, seede yi bu dee ñaar jëm kaw baax na ñaar ñu maandu su fekkee ñaar ñu maandu dañuy ragal ne amut mbooloo ma daje lu mu gën a bari baax na ba ko ñeenteel di séexa bi muy kàddu yi ñuy joxalante te mooy may naa la eh, may naa sama doom diw eh, sa doom diw moom it mu ni eh, nangu nañ ko donc kon waaye bi ñu soxla foofu rek mooy fii moom ñoom yooyu yépp du ci am ñoom jigéen yee benn farata rek moo la koy may te mooy can gi can gi daal soo ko xasee am moom leew nañ la doom doon nañ ay sa soxna jarul wali laajuñ la kilifa amu ci laajuñ tamit ay seede yi koy seede waaye laajuñu tamit li nga xam ni mooy muy siixa bi muy kàdd yi dox ci diggante ñaari kilifa yi muy kilifa ku góor ki ak ku jigéen ki laajuñu ko ñoom daal canuk kese ñooy tax ñu dagal la muy soxna yu jekk yu taaru yooyu nga xam ni melaloon nañ leen ci parti yi passé cam ga mooy lan ittiqaa'ullah Cheikhul Xadim nee na wa mahruhunna ittiqaa'ullahi seenu can moo di ragal yàlla faatiriha mi nga xam ne moo leen sàkk bind leen ragal yàlla rek mooy can bi képp koo xam ne ragal nga yàlla ah, téye nga canuk xóorul ay ni ci sa loxo danga ca jot bu soobee yàlla ah yi nag ragal yàlla googu eh, borom bi subhaanahu wa leeral nañu ni ci la nit ñi di gënante ndax xam nga yàlla dafa sàkk doomu aadama yi def leen ay race ak ay bi ak ay peuple yu différent waaye ci biir loolu race yeeg tribu yi ak peuple yi nar indi problème ci société humaine ndax yenn peuple yi dañuy foog ni ñoo gën peuple sàngam maanaam rek ma joxe exemple peuple sénégalaise bi mën naa foog ni moo gën peuple bi nga xam ni mooy française bi wala mu wala français bi gën foog ni moo gën sénégalais bi wala angale bi foog ni moo gën euh, français bi ila axiri yooyu jur na ay coow ci histoire humaine yu dul jeex ba nit ñi reyante nañ ci naka noonu wàllu race tamit dinay indi ay ay ay anarchie ci euh, société bi muy race bi foog ni ñoo gën race bee race bee tamit foog ni ñoom ñoo féete kaw ci race yi am ci race yoo xam ne ñoom dañuy foog ni sax ci bataille psychologique bi ñuy doxal dañuy foog ni ñoom ñoo gën a suufe ci ci yi naka noonu tam tribu yi tam noonu waaso yi tam noonu ngënante boobu nga xam ne nit ñi ñoo ngi foog ni ñoo ngi koy gënante ci ni leen yàlla binde borom subhaanahu wa bi nga xam ni mooy alxakamul adl nga xam ni mooy arbitre bi nga xam ni il est juste arbitre la boo xam ni justice rek lay doxal lan la wax bi nga xamee ni loolu mi ngi jur coow ci jamonoy jaahiliya yi muy jamonoy lislaam ni bëgg a ñëw bi lislaam ñëwee rek dafa àtte loolu wax mi yaa ayuha nnaasu inna xalaqnaakum min dakarin wa untha wa jaalnaakum shuuban wa la waaye lu tax li taarafu inna akramakum indallahi atqaakum yéen nit ñi maa leen bindi def leen aw góor ak jigéen def leen ay raas ak ay tribu waaye ay waaso yu différent waaye nag loolu dama ko def ngir ngeen xamante kenn ku ci nekk xam fa mu cosaanoo ak fa mu bokk ci ci ci ci ci ni ñu tërale àdduna ngir ab réeroo bañ am nit ñépp ci aadama lañ jóge waaye ngir yàlla mën a tëral li nga xam ne mooy organisation familial moo tax mu def race race yooyu ak fa ak ak ak euh, tribu yooyu ak peuple yooyu mu gën a yaatu waaye nag li taxaarafu pour ngeen xamante mais nag bu dee wàllu gën moom ki gën ci yéen inna akramakum indallahi atqaakum ki gën ci yéen fa yàlla xaw ma nag ci yéen nit ñi waaye ci yàlla man man seen borom ki gën ci yéen day ci man mooy ki gën a ragal yàlla nit ñi nag moom moom dinañ xool ki gën di ko xool ci xëy na mbub mu rafet wala alal ju bari wala aw askan wala ay bi wala ay race sénégalais bi mën naa ñàkk bopp ba foog ni américain bi moo ko gën ci bataille psychologique yi dox wala français bee ko gën ndax li fi jaaroon ci histoire ci wàllu colonialisme wala nangam wala nangam waaye ki ñàkk tamit bu néewee maanaam xel mën naa foog ni borom alal dee ko gën ndax alal ji mu amee ila axiri et cetera exemple yi du jeex waaye ca yàlla moom loolu moom ci nit ñi la waaye ca yàlla yàlla xoolul loolu nee ki gën ci at xaakum mooy ki gën a ragal yàlla le plus ah mooy ki gën a ragal yàlla rek entre vous seen diggante donc kon ragal yàlla googu nag dafa amee ñaari dimension borom bi subhaanahu wa taala wax nañ yaa ayyuha alladina amanu taqullaha xaqa yi wala tamuutunna illaa wa antum muslimun yéen ñi nga xam yéen a gëm yàlla dëggi-dëggi gëm ragal leen ko dëggi-dëggi ragal yéen ñi nga xam ni ak ngeen ci marxala imaan marxala bu dëgër parce que ngëm yàlla dafay wàññeeku di yokk yàlla tamit ay stade la dafa am ay ay ay niveau dafay gën a kawante dafay gën a kawante yaa borom bi subhaanahu wa taala nag ni yéen yéen ñi àgg ci dimension bu kawe boobu ragal yàlla dëggi-dëggi ragal ko wala tamutunna illa wa antum muslimun waaye tam dimension bi gën a woyof ci ragal yàlla mooy fattaqullaha mastataatum ragal leen yàlla seen kemtalaayu kàttan loola nag ku ne mën na ko kenn ku ne man ngaa ragal yàlla sa kemtalaayu kàttan dëgg dagal dëgg dëgg ragal ko nag li la koy may mooy nga jéem a ragal yàlla sa kemtalaayu kàttan di ca def loo man bu boobaa dana la wommat yóbbu la ci dëgg dëgg ragal yàlla su ko defee nga daal di téye canu soxna yële di miis yële nekk biir aljanna loola nag mi ngi jaare ci bi tawbatin min hawa nafsin li ragal yàlla goo xam ni hmm, danga koy jaare ci tuub tuubal borom bi subhaanahu wa ci lépp loo xam ne bànneexu bakkan la te bànneexu bakkan suñ ko waxee mooy feebar yi nga xam ni ah, ah, sont des maladies invisibles parce que dafa am ay maladies yoo xam ni euh, bu la euh, médecin bi diagnostiqué Euh, defar la visite mën na koo gis ci ay bëtam wala ci microscope wala ci ay appareil gis ni yow dangaa tawat bërëb sàngam wala appareil sàngam walla euh, sa sa veine yi wala sa rein sàngam dafa am problème waaye dafa am ay maladie yoo xam ne microscope du ko gis kenn du ko gis ci appareil te mooy feebaru bakkan muy feebar yu doy waar muy feebar yi nga xam ne ay cheikhul murabbi wal yi sëriñ bi nga xam ni dafay tarbiya di yéege taalibe bi ci yàlla di ko marale boroomam moom feebar yooyu lay yittewoo incha allah taala loola danañ ca ñëw ca kanam kanam bu xaside gi jeexee bañ war a ñëw ci xaside gi nga xam ni ci la sëñ Tuubaa di leeral nit ki naka lay tànnee sëriñ bi koy àggale ci yàlla ak sëriñ boobu yan melokaan nga war a amee bala koy tànn waaye ñu leeral rek ni eh, noonu rek lay lay lay demee su ko defee tuub googu nga xam ni daf koy tuub ci mbooleem feebaru bàkkan yi muy bànneexu bakkan yi eh, bakkan bànneex la bëgg bànneex yooyu feebar la ci moom lu mel ni foo dugg mbooloo mu dugg bëgg a bëgg daraja muy li ñuy wax alkibriya bëgg rëy rëylu foo dem buñ leen joxul palaas nga ni dañ maa xeeb joxuñ ma place bi ma wàcc wàccuwaay te loolu ku mu nekk ci yow ngay woote woon ni dangaa sóobu yoonu yàlla kooka xaajoo sax bay teg sa tànk ci yoon woowu ndax dafi di loo xam borom bi subhaanahu wa taala rek moo ko moo ko jago te loolu maam Cheikh Ibrahima Fall radiyallahu taala anhu mi nga xam mu jàngale ak taalibe ak ku sóobu ci yoonu yàlla yan melokaan la war a ame moom jàngale na ci lu am am solo muy feebar yooyu nga xam ni nit ki daf koy yore ci lu mel ni bëgg daraja ak rëy ak naw jëf ak ak bëgg ku la yëkkati ak yu ni mel hawa nafs dafa bari ak bëgg bànneex su ko defee nga tuub ci yooyu nag li taaxaati dëgmal topp borom bi subhaanahu wa taala jaare ko ci faratas yàlla ak sunnas muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon euh, bayit bu njëkk bi euh, ñu indi ci onzième partie bi cheikhul xadim daf cee wax ni euh, cam gi daal mooy ragal yàlla mi leen sàkk jaare ko ci tuub ci feebaru bakkan yi tuub ci bànneexu bakkan yi te dëgmal topp yàlla su ko defee nag bi tawbatin jaari ko ci tuub goo xam ni wa bi islaamin ak it jébbal sa bopp ilaa malikin yàlla buur bi subhaanahu wa nga jël sa jëmm ji doo ko jébbal ku dul borom bi subhaanahu wa nga jébbal ko yàlla jaare ko ci lislaam ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam andi bi tawbatin wa bi islaamin ilaa malikin qad jaada mustafa kanzil bariyaati maanaam tuub gu sell goo xam ni dafay ànd nga jël sa jëmm jébbal ko buur bi nga xam ne nii moo ñu indil ki nga xam ne mooy yonent yàlla muhammad mi nga xam ne nii mooy magasin mbindeef yépp mooy seen magasin xéewal su ko defee incha allah mbokk yi waxtu wi ñu amoon jeex na ba xaw a tegal sax waaye suñu émission bii di ñëw di duppeeg euh, douzième partie bi danañ ci leeral nag islaam googu sëñ Tuubaa di wax fii mooy lan te mooy njébbal googu nees koy defee ak yan teggin la laaj ak euh, naka la nit ki di fexe ba mucc ci li nga xam ne dañ koy tuddee ashirkul yi te mooy bokkaale yàlla gu nëbbu su ko defee lii daal fi la jeexale nag melokaanu nag li nga xam ne nii mooy xuuru ayni yooyu melo bi leen Sëñ Tuubaa jox jeexale ko nag ci ni can ga du dara lu dul ragal yàlla soo fexee ba ragal yàlla nekk ci yow téye nga can nga lay may soxna yooyu su ko defee nag ragal yàlla googu danga koy teg ci tuub bànneexu bakkan yi topp yàlla waaye jël sa bopp jébbal ko borom bi subhaanahu wa taala mi nga xam moo bind te moo yónni yonent yàlla muhammad mi nga xam ne nii mooy magasinu mbindeef yi mbokk yi fii la ñuy yem ak yéen di leen jox dig daje ci seen douzième partie ci émission bi di tànn sa bu la neex di leen wax ngeen bañ a fàtte abonné ngir njariñ yi di man di ñëw ci yéen wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.